Kouthia bis bu tegaatee tànkam TFM ñun ñu bàyyi alors am na ay yooyu am na par exemple yu am importance yoo xamante ne bii bu ku ci nekk defee menace bu Kouthia ñëwaatee ma bàyyi bu ñëwaatee ma bàyyi bu ñëw boo ci amee lu mat cinq personnes da nga naan waaw hmm. est-ce que kon du ma sacrifier benn nit bi au lieu quand même may dimbali Kouthia parce que ñëpp yaa euh, xalaatoon nañu ñu dimbali ko mu ñaar mais dafa am lu am lu ma bëgg a taxaw loo xam ne yow di nga ma ci leeral <laughs> mooy nit soo ko dàqee te mu nekkoon ci contrat à durée indéterminée muy CDI soo ko dàqee di nga ko mën a fay ay droits yoo xamante ne bii dina ci dund maanaam di nga ko fay xaalis bu bari. Mhm. Kouthia malheureusement dañ ko dàq mais fayuñu ko ay droits c'est-à-dire que kon Kouthia amatul woon contrat. CDI contrat amoo euh, ñu bari information yu ñu jot yow di nga ñu ci leeral mooy que Kouthia bàyyi mu doon bàyyi dafa bari et que dernière bàyyeem bi dernière démission bi bi mu démission bi bañ ko waatee ba ñëw. dafa ñëw mais signé wul contrat ci ay information hmm. ah yu ñu jot rek donc yow leeralal ñu. <laughs> non non da leen bàyyi rek da leen rek dañ ko dàq mu bàyyi rek mu bàyyi leen ak yàlla rek. non non non bàyyi ak yàlla amul foofu. <laughs> ah non yàlla nit soo ko dàqee da koy fay ay droit sinon daf lay porter plainte topp la ci. kii <laughs> kaay kay dañ ko dàq dàq ba garaaw de te ah TFM yàgg nañoo dàqee bi muy kii rek mais TFM yàgg nañoo dàq de. mais kuñ dax fay la say droit léegi lu tax mm. fayuñu ko ci droit am wala boobu amul woon contrat CDI bi parce que loolu laa jotee information que moom dan bii nii bi mu mm. mm-hmm. euh, ko wax sax ay yow ci information la xam nga ñun ñoom ay euh, tas xarit taskatu xibaar moom fépp lu ñu mënee jël information si xam man du ma nelaw ndax information du ma nelaw quoi mais dafa dafa tax dafa dafa garaaw information yi. Mhm. info am na yoo xamante ne doo ko tas quoi. <laughs> mais mbay <laughs> mbay léegi li ma xam. waaw li ma xam yëpp. yàlla wow xam la. ku Kouthia lenn laa contre si waa TFM hmm. ku liggéey dix-neuf ans dix-neuf de carrière si pour euh, kii est-ce que xam nga man TFM Kouthia moo tax ma xam ko ma xam TFM am na bi may nekk xale waaw sama maam moo ma ne kii kii ak a neex ñu koy seetaan mooy bi TFM bi mu yóbbee quartier yi hmm. foofu yooyu yëpp TFM lañu naan gis hmm. mais dafa su même suñu tooñee su leen tooñee nañ ko ne arrêté comprendre nga di ko fay salaire comprendre nga. Mm. mais TFM dama leen mere. donc 19 ans la fa liggéey. 19 ans loolu sacrifié nit la comprendre nga Youssou Ndour nag damaa bëgg. muy muy sama sama xarit la sama ñëpp ñëpp samay xarit lañ mais nay nay dégluwaat ay woyam yàgg yi na leen déglu moo fi woyoon di liggéey ba xëy ñu ne dàq naa la loolu moo ko fi woyoon. Mm-hmm. te te <laughs> Youssou ñu dàq wër na jékki-jékki rek taf sa ñu taf gars yi du Youssou du dàqe sax mais gars yi ñooy dàqe. mais li ma wax nii. ah. nit <laughs> soo ko am embauchement da nga koy mais gars yi dañ dàq dañ lay dàq force. parce que dañuy jékki-jékki ñu taf sa porte te xam nga lan moo gën a garaaw hmm. <laughs> dàq boo xamante ne doo gis nit ki dañuy jékki-jékki rek gis fi yow da ngay xëy si imaginer maam Ngoné. defaru mag yeewu yor saak dem ba si bunt bi ñu ne doo dugg <laughs> mu ne la <laughs> ñu ne lii la daa commencé tur si bunt bi waaw mais tamit noonu la ñuy dàq duñ ñëw rek dàq la sa raison. noonu la ñuy dàq non non mais même sax soo yow suñ lay waajal de doo doo doo leen gisati. yow ay ordre lañ lay jox ba ba nga. yow mais yow est-ce que toogoo tamit taxaw laaj ku caa lu mu def bañ daa ko tamit ñëw nit nit. nit waaw vocal ay vocal la rek. waaw mais loolu yëpp xam nañ ko moo ko def li mu def la tamit am na yoo xam ne bokku ci professionnalisme. Eh, tamit yow yow yow yow da nga xam loolu. Eh, xaw ma yow yow yow bàyyi ma yow nga ay da nga xam yow da nga xam ko ko ko ko yow. amoo fi nekk amul sujet tabou duñu fi nekk. ah yàlla da ngay am da ngay défendre nit ki. Eh! nit ki da ngay da ngay def. yow xamoo contrat xamaanoo contrat ti ti ti ti ti dégage ah waaye yow da nga xam loolu li ñuy wax amu fi bu nekk fi waaye yow euh, Kouthia nekk na eh. nit koo xam ne fii mm, mm. bégloo nag nit ñu bari waaw liggéey na fi liggéey loo xam ne nii waaw poussé na sax nit ñi def comédie ñu bari waaw ci Kouthia mun naa ne Kouthia tax ñu koy def waaw waaw euh, liggéeyam waaw dañ koy saluer waaw def na fi liggéey bu am solo waaw mais tamit Mm-hmm. def na fi tamit lu ñaaw. Eh, lu ñaaw lan yow mii ni ngay waxee sa far li nga doon wax ak sa jëkkër kenn du koy wax. léegi yaa gën a jëw jëwkat bu mag la yaa sa far yéen doon wax yu bon ah. déglu mm. euh, euh, du loolu. Mm. parce que Kouthia mën na dugg ci jataay bi tout moment man bëgg naa sax nga woo ko. Ah, ah, mais ci Kouthia moom tey moom wax dëgg yàlla wax da tey moom wax dëgg yàlla. Ah, d'accord alors doo woo Kouthia. non ah. kon kay wax waay kon kay waxal lu la sax. <laughs> non jarul nga koy non jarul nga koy wax. Oh. man ah. man Kouthia li tax ma bëggoon mu dugg rek. non man maa moom du duñ déggante de. Ah. maa moom duñ déggante mais dama koy faral nii rek xam nga dama ko dama ko yërëm rek. faral bi da nga koy teg ci yoon fii ñëpp ko yërëm. mais parce que ñi mu mujjee nii neexul kenn. mais aussi la diva man am na côté boobu du ma si d' accord ak yow parce que xam lu tax. Mhm. mooy Kouthia euh, xam nga damay bëgg ñu bu ñu lay dàq ñu lay dàq ci faute professionnelle. par exemple bu ñu lay sanctionné bu ñu lay dàq ñu dàq la ci faute professionnelle Kouthia il n'a pas euh, commis une faute professionnelle par exemple ci liggéey bi nga defee loo xamante ni bii euh, tey. Euh, mu ngi mel mu ngi mel ni voilà ci Feeling Dakar ma def loo xamante ni bii Bamba mënatu ko supporter yi mu di waaye lii ma ko supporter parce que euh, dama def faute boo xamante ni bii carrément faute lourde la faute professionnelle mais ku caa faute yi mu def. ça n'a rien à voir ak vie am la waaw vie am la moo tax ma ne ko suñu demee ba naan dañ koy daax wala bul bul ñëw rek di blâmer Youssou Ndour wala ña mm-hmm. fay liggéey. Mm-hmm. moom na laajte lan moo tax ñu dàq ko parce que tey jii bu taxawoon moom mu ngi défendre nit ki de mu la wax lan moo tax ñu dàq ko du ko wax. xamu ko góone mi moom filiste. xamu ko xamul lan ay ngóone yaa filiste. non wax ah. logique. Mm. logique laa la nekk di wax. yow mm. tey jii ku la dékkoon micro ne la lan moo tax ñu jëlee fa te TFM Kouthia doo ko xam doo ko wax. non non naka dañuy def seen mbir rek TFM moom dàqe TFM ak dàqe kay TFM dañuy dàqe rek. dañuy dàq rek dañuy jékki-jékki seen mbindaan yi ngi xooloo <laughs> mbindaan yi dañuy dàq de <laughs> yéen yéene fii Dakar yi nii yéen ñi dàq mbindaan yi ah <laughs> seen mbindaan yi ngi leen dàq bi ñi ngi xeex Sénégal déglu leen waa Feeling Dakar dëkk yow télé yëpp am problème yéen a ngi dàq na yéen a ngi. waaw ñu ngi noonu di àtte. alors <laughs> euh, alors y a pas de souci. Euh. <laughs> <laughs> Mbaye sois professionnel <laughs> booy def émission li ne ci biti sa yoon newu ok <laughs> voilà. ndeysaan eh silence. <laughs> Bamba Seif mba mba da ngaa dugg. tey bi non non tey bunt bi alors euh, mi ngi noonu dafa mel ni donc euh, bon yi ñoo nekk di wax ah. Mhm. Euh, ok elle cherche à peut-être. alors ba ñuy jàll ci leneen loo xamante ne bii cette fois si ci wàllum Kouthia moom xam naa ne Kouthia ku am bopp la fa lañ koy yemale rek. parce que nag dëgg yàlla moom yàlla na. kan laa dégg ñu woo Mbaye. Mhm. Oh, ah, fay la fay fay fay la yow. non woowuñ la de. ay waay Mbaye amaa leen occasion. <coughs> débat bi la doon daw. donc débat bi la doon daw ok du fu dem moom ñun ñun nag comme émission wu mais nag wax naa leen ko de yàgg naa leen ko signalé nee naa leen ñun ñun voilà ñun émission bi moo gën a naturel gën a relax donc amul daraay professionnel lépp voilà non ma ma ma dafa ma xawoon découragé loo quoi mais dëgg xam nga. gis nga dëgg ñuy wax si Kouthia mu naan waaye du ñu wax si Kouthia. wax dëgg dafa métti Sénégal mm. wax dëgg dafa métti Sénégal. mais ñu doon développé lu am solo léegi. Euh, mm. euh, da nga koy bàyyi mu terminé. waaw terminé léegi. Mm-hmm. terminé. li may wax. mooy yow. ku la dékkoon micro ne la mbay. lan moo jëlee Kouthia TFM doo ko wax. lan moo tax du ma ko wax. lan moo ko fa jëlee. <laughs> ah vocal audio yi la nga. gis nga ay audio kese ngay wax amoo leen lu concret loo mën a teg suñu loxo. non te Bamba parce que la. Bamba taxal ma wax la ñëw rek di défendre. yow yaa njëkk taxaw défendre Kouthia. Mhm. te loolu on se on te on parce que. moo la fa teg moo la yëkkati moo tax ñun ñëpp bu ñuy jànkante mbay mbay la ñuy wax mbay Kouthia. mbay Kouthia la leen ñëpp xamee. moom moom la njëkk a dàqit soo jëlee tey ji défendre ko. moom la njëkk a mais dañ koy comprendre su ñëwee demee noonu dañ koy comprendre su ñëwee dem mais booy défendre nit tamit danga koy teg si yoon doo ñëw rek défendre nit xala te te te an Bamba mhm. xale bu jigéen boobu yor nañ gis naa ko yor ay ay ay ay awraam kii ah ki ki ki ki ki partagé vidéo Kouthia bi mm. billaahi maa gis koo xamante ne yor na dañoo tase mu yàq mu yor ay awra kooku am si toro grand bi billaahi mu naan ma xoolal awra billaahi dañoo tase muy wër dañoo tase mu ne ma mbay mu ne ma mbay ay awra kii wa ngi nii barki yàlla bi wër ma ne ko ñun duñu yàq de anam ndaw si anam moom billaahi ak a mën a fen te fenkat international day fen fenkat international kooku mën a mën a fen mais def na bàyyi jàmbur lu ñaaw ba pare xam nga lan moo ma neex ma netti Kia Kia police a ngi koy wër yàq na gendarmerie mi ngi koy wër ñëpp a koy wër yàq na àdduna àdduna waa ji ba pare dem ah wallahi agim fii la ne ni fii la ma woone ma fii la ma woone ma bàyyil wax ji ma yóbbu la Dubaay billaahi billaahi ne ma naal may xaalis naal jëndal bii teg ne gëm naa ko man dama ko ne naa bàyyi wax ci bàyyi fenkat ga rek anamu woo na ma fii jënd ma ne ma dinaa la yóbbu Dubaay naa la yóbbu Maroc billaahi waayil wax ji kon xam koo jubul <laughs> ah, ah nañ wax de dëgg jubul. ah xanaa yow nga tàng nga noppi woon. ah non non damaa noonu rek. yow loolu tamit juboo la moo tax mu ñeme ko. Eh, may gëmoon nga ko. non non mais même su ma gëmoon daaw du ma dem même su ma joxoon billet bi du dem. Euh, def na lu lu ñaaw. def na lu bon ku ci am na ay sët. ku ci am na ay doom yu mag. ku woor daaw ba ren mu jig la ku ci am na ay doom yu sëy cest à daf leen dafa dafa cest à dafa yàq àdduna ku ci man pour man. waxuma la ah. yàq sax waaye da koo sacrifié. lépp ma taxaw fi mu ne nii. ah mi ngi mi ngi doxal si site boobu de site boobu mi ngi am site boobu yow yi gis nga direct yi ay un million de vues. yow de ay waay te terewul li mu amoon ci dëkk bi amatu ko. Real TFM moom waaye moom muy moo la moom da day sóob rek xam na ne. li mu amoon ci dëkk bi amatu ko xam na ne Kouthia moom saye. <laughs> saye si la. <laughs> non mais mais mi ngi liggéey de. non fii Kouthia saye. mi ngi liggéey non Bamba yow yow daal comprendre il defoon de. ah mais li mu amoon mënatu ko. lan moo tax yow yow yow yow li sayoon. Karika TFM Karika TFM ñoo ko waroon a dimbali bañ ko dàq ñu jël ko parce que dàq bi moo waral. li yëpp am c'est-à-dire que li yëpp am bu fekkoon ne bañ nañ dàquñ ko hmm. toléré ko quoi. ñu waxtaanee ko ci biir néeg ñu yedd ko waxtaan jubóole ko ñoom fa dëngool barki alxuraan bu boobaa Sénégal yëpp dinañ bàyyi mu sedd xam ne lii nii erreur la ku nekk lay dal ku nekk ay toog di waxtaan ak sa mhm. soxna di wax ci nit nangam nangam. waaw parce que Olof Ndiaye bu daan wax. bu guddee ma waxtaan ak sama njegenaay mhm. nit ñi dañoo foog ne dañuy tëdd njegenaay waxtaan mais njegenaay moo doon jigéen parce que fii nga daan toog tëdd di wax ak sa soxna di ko wax. muy mu lay xam nga munoo waxtaan ak sa njegenaay mhm. njegenaay boobu nit la woon mooy jigéen bi ñu tax ñu naan waxtaan ak guddi ma waxtaan ak sama njegenaay mhm. mais nag waxeewuñu ko fii nga wax ak sa borom kër ba pare génnee ko ci biti parce que bilaay suñ génne suñ génnewoon discussion jëkkër ak jabar yëpp lan moo tax xale bu jigéen waxul sutura rek lan moo tax xale bu jigéen waxul kenn gisul ay vocal am de <laughs> ndeysaan les mal compris te jabaram la woon ndeysaan billaahi mais kii yaa moom yow xamoon nga bu baax. xam naa koy bu baax. en woon na ko non non kii mosuma ko gis mais téléphone rek appel vidéo day yor cinq téléphone nag. day ah enregistré nit ñi rek day enregistré rek. waaw yow mi doon na la woo appel vidéo. waaw waroon naa yëpp la ma daan woo. Hmm. billaahi barki yàlla dafa naa yor sama dossier de mais appel vidéo moom lañ ko daan wax moom. dañ ko daan wax ba ba ma ne ko man sax daan naa ko dama dama lay takk. Ah. billaahi ah, waaw da nga cee gaaw de yow. kooku ñu kii ñu kii mu won ma ay photo yoo xam du photo maanaam c'est le dangereux de. maanaam <laughs> waa TFM def nañ lu garaaw kooku. ay audio yooyu su ma dégg su ma gëmee ne audio ku caaral dama jaaxal. ah. <laughs> kii moo neex nag. ay photo yoo xam ne photo mooy. ay yoo xamante ne photo yu sexe ubbi dënn yow mais du photo daf téléchargé si ay photo rek dina ko envoyé moom naan ligi man la te soo ko gisee du moom non man li ma xamee ko du fopp maanaam yow li li dal ci ku caar na dal ci yow <laughs> mënoon na see dal de barki yàlla <laughs> baax na est que dalul si sax mu ne mu ne Kouthia du sa mu ne mu ne Mbaye du sama cible <laughs> Kouthia mooy cible bi waaw kooku daf maa xam pour wut Kouthia. Hmm. parce que man bi ma xamee Kouthia laa gëj a dégg. parce que dégg naa yow yaa ko présenté Kouthia. man bi ma jëlee Kouthia laa gëj a dégg. waaw ok Mbaye xam nga lii mës naa la ko laaj nga weddi ko <laughs> tey moom nangu nga ko. lan gal bi yaa ko présenté Kouthia. non booy non non non Mbaye doo yaa ko waxal sa bopp léegi. lii xew de bi nga xamee Kouthia la ma nga ci dégg. non non euh, man wax naa ko si téléphone naan ko yow da ngaa xam Kouthia rek bàyyi ma man waxu naa ko ko warkat nga. wax naa ko ko nee naa ko imbécile dëgg nga. wax naa ko ko yaa tax mu xam Kouthia. nee naa ko imbécile nga baadoola nga xas naa ko ba mu ràpp si kanam bu yenn xale bu waay benn journaliste bu mag xam bu bi ne allahu ak dafa fàtt nopp yi arrière ne allahu akbar nopp dalooti na mbay mbay de moo garaw ma koy xas naan ko kii warkat la ma xas xale bu jigéen ma muy bëgg a dee mu man kay man kay li ma war def def naa ko ma ni ko nag baadoola nga imbécile nga kuti moomu moom nga lépp wax naa ko billaahi lépp wax naa ko d'accord ok léegi Mbaye lii c'est une émission relax mais de aussi euh, dossier de une émission de révélation a à dire déglul ma la ma laaj la lu ndaw rek ñu jàll en attendant ñuy bëggee euh, ñi nga xamante ne bi ñu ngi ci direct di seetaan yëpp Ami Ndiaye Diatta merci beaucoup la présidente merci aussi à aji Roxi Adji Roxi Ba ñu ngi lay euh, nuyu ci Amérique merci euh, yéen ñi ñuy seetaan ñëpp ah donc di bëggee ñu nekk ci live bi Abdoul Wahab Sonko Abdoul Wahab jërëjëf ñu ngi lay bëggee ah Euh, yëggurul je pense que noonu la bindee tur bi donc ñu ngi lay bëggee aussi Safiatou Ba Safi yaay sëñ Mbacke merci à toi Safi euh, Nanette Lopez kooku c'est ma donc moom mu ngi France ñu ngi koy euh, bëggee bu baax a baax euh, voilà Amina merci yaay wala wala Amina Cissé France merci jërëjëfati ñu ngi bëgg aussi Ablaye Waaj moom aussi mu ngi ci direct bi merci merci à vous tous suivre donc wooy leen di commenter parce que émission bu relax la dañu leen di euh, béggee en même temps di waxtaan ak yéen mais aussi di waxtaan naale ak euh, sénégalais yi ak <laughs> dossiers yi di génne li nga xam mbay question bi ma la bëgg a laaj mooy. Ah, waaw non des na. man damay wax di ma xam man. yow xam nga parce que xale yi jigéen ay baadool lañ. xam nga ñun xam nañ ne yaa ko yaa tax mu xam ku caa mais liñ la bëgg a laaj rek un ci kii boobu. yow fan nga njëkk a gisante Kia fan nga ko xamee en fait. Kia hmm, euh, non non du ko wax lu du ma wax lépp nag mais damay junj rek <laughs> Kia dama fee def émission Dakar Buzz. ok dugg commentaire si waa waa Dakar Buzz ñoo ko jox sama numéro. ok mu ne leen ah mbay laa bëgg dimbali parce que mooy biñ ma <laughs> bi ñu ma xaree woon dóor ma. mu ne dama ko bëgg a jëndal ay ordonnances. loolu waaye yow waaye mooy bi ñu ma bu njëkk ba ma nekkee woon di ji si dëjee Yves ah. sama kar bu bi ñu ma kar njëkkee karee ah, waaw ba dóor ma dóor boobu ma naan leen maa ngi nii euh, euh, euh, xaw ma fan la non non boobu waali waa waa waa mooy moo waali jëndee te jënd kii maye xaalis bu bari ba waaw. waaw dina mooy ma feebar bi ma bi ma kii damaa passé parce que damaa pare hôpital rek dem si ñoom Baye Ndiaye fekk fa waali waali jox ma xaalis. ñaata. xaalis bari dama jox si laa jënd téléphone boobu. léegi mooy mu ne ma li ngay wax waal di ma kaañoo léegi nag bi ma defee waa Dakar Buzz nag bi ñu déggee ne waal jox na ma xaalis ba ba vidéo bi ma defoon kër waali léegi nag ñu woo ma ne ma loo doon def kër waali ma doon expliqué nag. Mhm. ak ni ñu ma dooree ak loolu. mu ne ordonnance yi man leen ordonnance yëpp jël naa ko ndax waali merci ak ñi ñi ma doon envoyé mu woo ma ne ma. kaay la ma wax ne la kii kii amul fenn la kii amul tile tile il faut ñu nekk intelligent ndax ñu baal Kouthia ñu arrière il faut nga wax nag. voilà yow rek la ñuy def ñu wax arrière sénégalais yi il faut ngeen xam ne kii yaa moo bon. moo baadoo la mais eggalil fi nga nekkoon. léegi. Mhm. mu ne ma damaa laa bëgg a fajal fajal uh, uh, fayal sa kii yëpp. parce que man ku dama am xaalis joti mi kii ay oto laa jaay ak ay kii businessman laa. ma ne ko waaw man na ma xoogaliku. mu jéggi bi may njëkkee envoyé xam nga yàlla. 15000 hmm. xaw ma 12000. ok. loolu du ay fen. eggalee rek yow rek la mu jékki-jékki. Hmm. ñuy waxtaan di waxtaan di waxtaan di waxtaan di waxtaan di waxtaan di waxtaan hmm. mu ne ma loo bëgg ma ne ko damaa bëgg a fay apartement ah mu ne naa la jox deux cent mille ba tey ba sànq. ok mu ne ma naa ñëw Sénégal jël dugg la nga fekk ma foofu ñu waxtaan ma may la xaalis. ñu jékki-jékki déggatuma ko. trois jours mu ne ñëw naa Sénégal waaye ñibbi naa damaa am am kii du faat du ay fen. boobu en boobu boobu numéro lan la yoroon numéro. numéro ay numéro yu bëri nag ñetti numéro comprendre nga. non numéro bi mu yoroon numéro France la numéro. Amérique numéro waaye loolu mën nga mën nga xaw ma ni li ma xam nga man yi. Mm-hmm. xam nga numéro yi moom. Mm-hmm. numéro yu bëri lay lay yor yenn saa yi mu woo ma ay téléphone yu bëri nag ku ku mu woo nag dalay enregistré man de ku ma wooyee. Ah, am na star yu bëri yoo xam ne enregistré la su yowoon nag tey leen si si si si kii boobu am na star yu bëri enregistré mm-hmm. ay te ak am link nag. laa ilaha illa dafa am link de ay kilifa yu bari moo ma leen présenté fii Sénégal hmm? ma leen wax rek baal leen ku caa senegal bàyyi leen baal leen ku caa ma baax na yéen a ngi tooñ de kii yaa moo tooñ de léegi hmm. mu jékki-jékki bi mu jékki-jékkee à ba léegi gisantewu leen parce que ñëw na. ne la def naa trois jours fii dellu naa waaw ok ba tey man maa ko naroon na njëkk a takk man maa ne ko nag dama lay takk barki Rasulullaay. Hmm. mu ne ma ba ma jox naa ko sax sama yaay. ndeket noonu lay def. noonu lay def ñu siiw ñi rek lay lay lay mooy ne la may deux cent mille. pour nga waaw musuma may dara. gis ba nii keroog bi ma ne. bàyyil wax ci ma jë ma ma ma jëndal la dëgg. moom moom moom wax dëgg moom. moom moom. <laughs> Eh, léegi booy boobu xam naa ko de. léegi ok voilà chronologie des faits euh, leneen li ma bëgg a xamaat mooy. par exemple bi mu nee la delluwaat na donc ci réew mi ma nekk. Mhm. malheureusement gisewuñu. Mhm. mu toog déggante déggante. waaw waaw loolu la seen déggante foofu la yam quoi. waaw non après ma jékki-jékki. Mhm. ñuy déggante waat ma jékki-jékki jox ko téléphone man waa kii ku Kouthia. Kouthia nga jël paas ko Kouthia téléphone. waaw boobu laa ko jëlee. kon cible bi. ciblation bi. wax naa ko keroog si te kon tabax bi ci tabax si nag tabax bi laa ne ko. yàq nga carrière jàmbur ah mu ne ma ñu xuloo sax suñu téléphone bi dama ko doon enregistré ma wax ko lu bon ma wax bon a bon a bon a bon booy booy boobu oh kii yaa assi. xam naa ndeysaan la gëmloo la gëmloo Kouthia rek. waaw da lay gëmloo yoo xamante ne naan la dama lay yóbbu États-Unis sa këyit yi <laughs> kooku moytu leen ko. ngay xel mi vite fait. kooku dafa garaaw de te nag ñu siiw ñu si Sénégal yëpp xam na leen ñëpp xam na leen. ñëpp ñëpp la xam ñëpp la xam ñëpp connaître ñëpp la xam moo tax bi ñu arrêté Kouthia ma ni leen. après yow euh, après li ma la bëgg a xamal li ma bëgg a laajal. <laughs> baax na cette bu la neexee nga tontu bu la neexee nga bañ tontu mais aussi euh, quand même yàgg Kouthia bi nga ko ko passé téléphone nga gëj a dégg gel bi. ba ni nga dégg waate scandale wala après Kouthia rendre na la compte ne la mbay ah sa boy bi kat takk naa ko jabar takk naa ko wala wax ku jaaw xoolal loolu vraiment. non non wax dëgg yàlla man wax dëgg yàlla dossier boobu du du kii parce que déggu ma ko après wax naa ko nag wax naa ko xale bu jigéen bi nee naa ko na la la ko caa mën a teg te waxoo ma ko wax naa laaj ko ko naa ko loolu laaj naa ko parce que yow juboo da ngaa xam ne ko juboo li ma métti dafa mën a fen. ku caata ku caata bi waxula tak waxula ko de. ah mais xam naa damaa ba xam naa. maam Ngoné ok euh, Mbaye ñu pose maam Ngoné ngi yow <laughs> waaw on est kii seytaane la kii dëgg si wax. lii may wax nii. ah dama leen di ma ne def leen attention bàyyi leen ku caa bi ngeen naan ay ojo bàyyi leen ko parce que dañ koo sosal kii soskat la. xale bu jigéen bi man maa ko njëkk a xam dafa bëgg ay audio wax ci bi dafa bëgg ay audio xale bu jigéen bi bàmba mii soo ko xamoon sax soo ko woowee mu enregistré la ah baax na. yàlla bu ma ko ba pare mën naa sax defar ay audio parce que dafa bëri ay bi dégg naa ni jot na encaissé xaalis bu bëri ci Kouthia avant. waaw noonu dañuy dañuy encaissé. muy publier parce que naa yi amoon na quand même ba mu encaissé. encaissé encaissé ba pare da lay na gëmloo ne am na yenn audio yu des day fen benn audio desul audio yooyu la naan su taxawee Kouthia daal. liggéeyam mooy mu ba ma bàyyi mu bàyyi TFM su bàyyiwul TFM naa par exemple suñ ko dàqul ma partagé yeneen vidéo wala yeneen audio ah gars yi nag dañ naan ah xaar ñu arrêté ku caa ndax audio yooyu bëgguñu mu génn pour suturaal ku caa comprendre nga mais lépp lépp lépp lépp xale bu jigéen xale bu jigéen boobu imbécile rek mooy di kuti mbow mbow gis nga doo ko dégg nag doo ko dégg gis nga ay fanweeri numéro la yor xaar moo ne sama téléphone ay fanweeri numéro la yor ay fanweeri numéro yi bu ma enregistré su woote waatee beneen numéro la xam nga kooku jubul. te yaa xam njëkkoon bëgg a takk. non ko kay saa yi ko koy fan. li ma gëm loolu li ma la léegi rek may la moom dafa dal ne ah mbay du sama cible attends damay dem ci ah, Kouthia mooy. da lay ne da laa lay def gëmloo la ko di la wax wax yu neex di la woo ay xaaju guddi di man mii rek est-ce que am na <laughs> <laughs> man mii rek commencé woon naa yëbee ko ah. commencé woon naa yëbee ko <laughs> non Bamba. sama xel ñaaw na de. ba yàlla eh commencé woon naa yëbee ko de parce que après nee na ma man mii rek am naa say audio di su ma neexee partagé ko <laughs> ma ni xoolal maa tay maa jëw ñëppay jëw waaw maa tay su déggee lii nag na partagé <laughs> maa tay. na partagé ah waaye yow waaye yow. muy fenkat comme ñëpp rek est que waxoo lu raw. lu raw ñun ay fenkat lañ rek ñun ay dulkat lañ. lu raw li ku caa wax. dégg nga waaw ñun <laughs> man. ñoom ils sont tombés dans leur piège. ñoom moom lañ loolu moo leen daal xale bu jigéen bi leen fekk seen mënin. Mm-hmm. dóor leen daan yow eh yow bu ñu yab de yow. xale bu jigéen da leen fekk seen mënin. dañuy eh, ah, eh, dañuy sos dañuy fen man man man kenn bu ma ko jàppee man. ku lu waay wax euh, suñu part suñu jékki-jékkee woon ñu partage samay audio man loolu lañ ma tuddee ay duul lañ ma tuddee. ah est est-ce que dañ ñoo bëgg wax quand même ne mm. euh, xale bu jigéen bi mm-hmm. mu li mu ni mu mel c'est-à-dire que euh, Kouthia ko daal mën nañ ko comprendre parce que xale bu jigéen bi. waaw yi wax la. voilà li mu def ku mu ko def nga. ko def nga wax waaw ku mu ko def nga wax. que ba si man la njëkkee parce que man dañ ko ko teel a leeral ne. mbay soo ko waxee yenn wax yi mu commencé yëbeeku. nga wax li nga xam rek. ma wax <laughs> ah li lay wax parce que man nam ma ay ojo nam ma ay kii man nam ma parce que man élément bi ma doon tudd bi may tudd avant ma naan mbay mbay mbay mbay ah tuf si sama nopp dafa ne mbay mën mënal fen mbay mën mënal fen mbay mën mënal fen mbay mën mënal fen ñeenti yoon doo koy doo ko mooy tudd <laughs> waaw na partagé <laughs> man loolu lañ ma tuddee mbay mënal fen mbay mënal fen mbay ah. mënal fen moo tax may la gel mi ngi ci dossier mais yow intéressé woo waaw kay été waaw kay loolu la def ne naa daaneel ponkal mi Kouthia mooy cible bi waaw xam naa leer na ma ni dañ koo fay pour mu daaneel Kouthia man xam naa ko non est dañ ko fay ah parce que yow si ba léegi doomu jàmbur rek di ko audio rek lu mu audio ay waay xam da te nag gel bi dalay wax lu neex ay su ma ñëwee dina neex de sax maa ngi yow rek sa appartement bi <laughs> xam naa ko kooku bañu si bañu si ba nga présenté ko sa yaay mun mu garaaw mun naa wax ak sa yaay ne dama laa bëgg yooyu naa fa ñëw naa la may xaalis xam nga gëmloo sa yaay benn affaire. kon yow Mbaye waxooñu waxooñu lépp de. <laughs> kooku kooku kooku jox naa ko fi sax Seyna Bamba benn mu sotee moo xam moom ba Seyna Bamba gëm ko. <laughs> man dama xam quoi. yow soo fàttali ko Mbaye. ah toog fii nii bu njëkk ba. <laughs> Nord Foire. mel ni mosoon nañ ci waxtaan. ñu toog ci kaw terrasse bi am benn gel bu lay woo. ne waaw maa ngi nii ànd ak sama garde corps bi nga def ko parleur mu ne waaw sama garde corps yi laa àndal xaw ma lan affaire yooyu. ma ce que mu coupé jékki-jékki joxaat la rendez-vous may la mbayee. ah non non kooku beneen fenkat la. fenkat yi bëri nañ de kooku beneen fenkat bu jigéen la eh wa <laughs> naa ko. ku mën a fen koo xamante ne. kooku je me rappelle loola may la mbay eh, ma may la kii. waaw kooku tamit danaan la maa ngi ni sama garde corps yi foo nekk ma fekk la fa xoolal am naa essence 4x4 laa yor sama kër oh xale yi dañoo feebar de xam naa kooku tamit daf maa bëggoon ku caa. d'accord. Euh, yaa ngi audio baax na. <laughs> alors mbay lim ñu wax yépp donc wax dëgg yàlla euh, jaadu na yemb na ñu comprendre Kouthia euh, n'est-ce pas euh, Ngoné Ladiba yemb na quand ñu mën a comprendre Kouthia ci ne dafa tombe ci piège dafa tombé ci piège ba pare dafa wóolu xale bu jigéen peut-être mhm. moo tax mu wax ko loolu yépp xale bu jigéen bi da ko metre à l'aise mhm. peut-être on sait jamais xamuñu ñoom lan moo nekk ci biir jarul wóolu nag de waaw waaw wóolu na ko nag moo tax mën nañ jël di moytu rek. <laughs> waaye def <laughs> ku caa def de. <laughs> astaghfirullah yow daal mm, jarul wóolu en façon jarul wóolu du dama bëgg a charger ñun ñun.